port de Dayane bi pare war a mën a générer ay emploi yu bëri pour sénégalais yi. parce que gis nañu sax école euh, en tout cas de formation bu ñuy wax ci wàllum pétrole ak euh, NPS suma suma mhm. juumul donc yooyu peut-être doy bi la ñuy wax parce que peut-être benn pas de de de boo xam ni euh, ñu ngi koy teg. bu bees mais est-ce que doy na loolu aussi c'est c'est vraiment à se ci li nga xamante ni moom moo di nombre bi ak surtout capacité bi nga xamante ni da koy jël mais euh, boo waxee aussi wàllum euh, réforme bu ñu war indi ci wàllum euh, système muy éducation wala enseignant et tout damay xalaat réforme yi nga xamante ni indi woon nañ ko si ay module yu ñu bëgg a dugal di ko jàngaloo xale yi te mu indi fi coow muy beneen xeetu réforme wala bokk yeneen xeetu introduction yoo bëgg nañ ko ci introduire nañ ko ay ay ay yu lu ci mel ni ay éducation sexuelle nga xam ni tey dem nañ ba euh, loolu indi coow ba beneen pas topp ci muy mbirum euh, criminalisation de l'homosexualité ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo ko initié yenn ci ponk yu leen tax a jug moom mooy tey yooyu les genre xeetu jàngale ñu bañ ko dugal ci biir euh, école yi tey boo déggee coow boobu nga xamante ni proposition de loi képp la mu indi tey ay coow yow ban gis-gis nga ci am par rapport ak surtout ñoom li nga xam ni moom moo moom moo leen tax a jug association boobu. waaw xam nga <clears throat> euh, mbir bi tey par exemple am na ay député yu ko porté am na tamit association euh, euh, nu tuddati association. sàmm jikko yi ànd sàmm jikko yi bon tak tooñ nañ ñu sax ñun député yi parce que nee nañu dafa am ay liste boo xam ne ay député. yoo xam ne mhm. dañ leen yónni woon Nations Unies pour ñu dem défendre LGBT ñu tudd ma ci. tudd ci Seynabou Wade tudd ci Mamadou Lamine Thiam. mooy PGA bi ñuy tudd bu ñuy wax. te yàlla xam na li ñu ci walla dara du ci dëkk parce que PGA boobu ba muy ñëw fii ci Sénégal la woon ñun demuñu woon Nations Unies am Moustapha Niass le président Moustapha Niass bu ñu ciy tudd dañu koy tooñ te député yi ñu ci tudd yëpp ñoom euh, wax naa ko keroog baabakat Mbuub nee naa ko li ngeen def da ngeen tooñ parce que ñun ñi nga xam ne ay kilifa la ñu nekk ci biir dëkk bi ngeen gis suñu tur ci benn document da ngeen war a ci ba pare. Mm-hmm. parce que man mii PGA ba mu fi ñëwee dañ fi wax affaire objectif de développement durable et de euh, ci wàllum. Euh, crime contre guerre yeeg parce que ñoom li ñuy def ci pàcc dafa bëri ñun dañu xëy rek gis benn document gis suñuy tur ci suuf man j'ai toujours été contre l'homosexualité yàgg naa ko wax te lii nga xam ne tey projet de loi bi ba ñu ko génnee di ko coow yi nee naa ne le groupe parlementaire ay mi ak li ay miru ñu wax mënta ne c'est-à-dire que groupe parlementaire du décider ne projet de loi bi mënul c'est au bureau de l'Assemblée nationale de décider est-ce que déjà dans le dans la forme dans le fond pro proposition de loi bi ñu indi jaar na yoon mu nekk les propositions de loi boo xam ne bu nekkee ni ñu ko bindee amul benn incidence financière te bii projet de loi morale la mhm. dañ koy yóbbu commission technique commission technique bi ministre de la justice ñëw nee ne lii code pénal bi jël na ko wala jël na ko mais euh, xam nga dañuy wax borom ñaari tur yi mais affaire bi nekkatul boroom ñaari tur parce que da ngay wax bi bisexuelle wax transgenre transgenre nekkul suñu code pénal transgenre maa nga nekk góor def sa bopp jigéen wala nga nekk jigéen nekk def sa bopp góor yooyu mhm. tamit jëluñu ko ci suñu code pénal dañu wax rek borom ñaari tur yi acte contre nature est-ce que léegi nañ considéré nañu ne transgenre acte contre nature mais nañ ñëw ñu expliqué assemblée nationale ñi yëkkati seen loxo voté voté pour wala contre loolu la ñu wax ñii nañ ne am na ay relents politique mais li am ba am tey astu fi ñuy wax fii am na ay école française yoo xam ne ñu ngi fii Sénégal ñu ngi jàngale euh, homosexualité jàngale droit à l'éducation waxuma école catholique di dama ne ay école française yu koy def. yoo xam ne tey école nekk biir Sénégal yu nekk biir Sénégal te di jàngal ay doomu Sénégal di am na ñoo xam ne man gis naa ñoo xam ne keroog sama benn xarit bu ciy retiré doomam parce que ñii école française yi fi mu leen bëggoon yóbbu ñu ngi commencé di ñu dugal parce que loolu mooy seen politique tey même ci. di jàngal ay doomu ay Sénégal yow yaay jël sa choix dem yóbbu ko école française école française bi li mu lay jàngal mooy programme français parce que après da nga bëgg a am bac français pour yóbbu sa doom France. donc bu nekkee ñoom seen module yi dañ leen jàng pour def bac kon bac boobu ngay jàngi jàngoo bac bi nga xam ne état du Sénégal moo la koy jox donc loolu tamit dañ parents yi dañ ci war a bàyyi xel soit état bi jël ci mesure nee na ñun lii la jàngale suñu dëkk lii mooy suñu diini lii mooy suñu culture parce que lii ñoom Cheikh Yérim Seck wax keroog c'est vrai dëgg la euh, boo ko boo jëlee projet de loi boobu proposition de loi boobu boo ko voté mën na am ay incidence mais incidence yi muy am est-ce que ñun war na gën war na bu ñu ko nattee ak li nga xam ne li muy yàq ci suñu culture suñuy xale ci suñu ay doom. jaral ñu mais incidence yooyu sax déjà yan incidence la euh, parce que dañuy tudd rek ay incidence wala ay ay pression financière wala yoo xamante ni étrangère mais c'est c'est quoi au juste. pour ñu xam parce que est que le Sénégal en perd dëkk yi tey yenn dëkk yi muy ay Danemark muy ay États-Unis muy yenn dëkk yi dañ lay nee ne tey pour nga mën a bénéficier ci yenn seen i programme d'aide il faut nga mën a nangu le droit des LGBT loolu lañ lay wax incidence est-ce que ñun jaral nañu est-ce ñun war nañu nangu tey ñoom ñu imposer ñu seen vision ci àdduna bi nu mu war a doxee ba yàq suñuy doom yàq suñu askan yàq suñu culture yàq suñu diine loolu mooy loolu mooy coow li est-ce que xaalis boobu tey est-ce que nga jàmmaarloog yàlla suba nga war ko ne ne ah man de sàmm naa sama diine sàmm naa sama sama sama samay doom ba lii nga xam ne tey alquran wax na ko hadis wax ko. ci nga xam ne mooy suñu jamono wax ko ci diine est-ce que nangu nañ ko wala est-ce euh, sàmm nañ ko bañ a ba ñu voté waa bi tere ko loolu nag tey décision bi assemblée nationale moo ko moom. te loolu vrai c'est vrai que c'est une demande boo xam ne gis nañ ci population bi de plus en plus c'est une pression pour am ci réponse ñun ba ñu nekkee député même l'ambassade du Canada am na benn délégation bi recevoir oon man la woon Thierno Bocoum Abdou Mbow Siré Ndiaye je me rappelle xaw ma on était cinq mais ba ñu posé question boobu suñu leer table dañ leen ne li ngeen bëgg a def nii du fi mës a am fii ci Sénégal te loolu suñu premier mandat la woon ñu leen boo leen bëggee lakk dak Sénégal rek fexe leen ba indi benn projet de loi boo xam ne day promouvoir wala day jàppale sax wala day dañuy xalaat sax ne ay droit daf fiy am xam nga yëfu ñaari tur yi yàgg na am Sénégal. mais est-ce que donc euh, ko bëggee ñoom def légaliser ko def ko farata. loolu lañ la Sénégalais yi dund. Mhm. mais mais est-ce que euh, parlement boobu ngay nga doon tudd te nga ni euh, cité nañ ci ay tur yu bëri ba ci sa sa bos est-ce que foofu parce que yaa ngi expliqué ni ñoom seen ay objectifs dafa dafa diversifié tey est-ce que tamit duggoo leen ci loo xamante ni réellement xamoo leen lan la. personnellement damay wax ñi ñu tudd ñëpp xamuñu lan mooy PGA ni ñu tudd ñëpp Mamadou Lamine Thiam bañ koy contacter ci mbir boobu ñooñu dañu waroon changer seen bureau. ñëw di discuter ci li nga xam ne de euh, war crime lañ ko demee li euh, li nga xam ne tey mooy crime contre la guerre ak li nga xam ne tey mooy mooy objectif de développement durable ak protection des droits humains mais loolu boo ko waxee tey nga ñëw waxoo ñu ñun bu ñu nekkoon ndax ñu ne man xam naa moom Lamine Thiam bu nekk un talibé Cheikh Haqqan xam naa Seynabou Wade xam naa man mënu nekk tey ci famille omarienne ñu may gis may dem défendre ay LGBT am na loo xam ne xel xalaatu ko xaalis jaraluma ko gisuma ci benn intérêt boo xam ne man am mën naa ko ci am donc loolu bu ñu gisee xëy document bi ñu ngi koy saytu pour xam exactement lu tax ñoom ñu dem yóbbu ko ci document boobu mais fii lañ ko organiser je me rappelle très bien fan lañ ko organiser parce que diine bi ñuy wax ñas bi li ñu ci tudd ñas mais moom dafa ñëw quelques minutes ci diine boobu man ci li ma fekkee ñu def ba ñu defee seen bureau ñu dem seen yoon fekkeewul travaux xamul travaux lu muy dem lu muy dem li ñuy wax mooy euh, euh, euh, da ngay mooy baal ci anglais bi war crime mooy li nga xam ne mhm. te crime boo xam ne mën na am ci guerre ak yu mel noonu naka la ñuy fexee ba ñooñu ñu mën a ñu mën a ñu ñu mën a ñu mën leen topp mais loolu bu ñu génnee ñun ñu weesu loolu passé ko mu doon douzième législature nga dégg am na ay député yuy dem waxuñu sax fii de parce que ñi ko wax sax xamuñu dañu ne dañu dem Nations Unies man mosuma bokk ci délégation boo xam ne Niass di dirigé na ko pour dem Nations Unies mosuma dégg. benn délégation bu jóge assemblée nationale dem Nations Unies pour défendre li nga xam ne tey mooy droit des LGBT gisuma ne tey ba ma nekkee sama mandat am na xel ñaar ne day dem défendre mel noonu donc man damay ne et je l'assume que donte xam ni moom ñoom loolu la ñuy défendre c'est-à-dire seen ci biir PGA boobu xam nga ci biir xoolee par exemple ci seen i parce que organisation mais mais am na ay organisation Amnesty au niveau international lu day défendre affaire les droits des des LGBT am na ko ci seen droit te pourtant amnistie am na Sénégal est que tëj nañ ko. Mm-hmm. tëjuñ ñu ko xam nga tey tey gis nañ fi Seydi Gassama am na benn temps ba mu fi waxee ci li nga xam ne tey ci ci ci droit yi ak góor jigéen ñu ñuy dóor sénégalais yi ñu ñuy dalee ci kawam te pour pourtant ci liggéeyam la la bokk. mais am na loo xam ne leneen ñu ngi koy liggéey ci amnistie loo xam ne bokkul ci droit yi donc PGA bu nekkee am na ci li nga xam ne tey mooy objectif am loolu te ñun gisuñu ko woon xamuñu ko. mais dañuy ne ñun gisuñu ko parce que lii la ñu fi ñëwee woon ñu woon pour lii mais tamit bu nekkee ñoom tamit loolu dañ ko gis dañu war a jël seeni téléphone wala dem ba assemblée nationale ne dañu bëgg a rencontrer le président Moustapha Niass mu wax leen exactement lan moo xew wala ñu woo Mamadou Lamine jàmm bi nga xam ne moo fi indi woon PGE ñu ne ko monsieur le président Mamadou Lamine Thiam lan moo indi woon waa PGE mais xëy na sénégalais yi am na ay député yu dem Nations Unies te li ñuy wax teguwul fenn te du dëgg te man ci am na benn site je m'excuse xalaat TV mais man sama bopp j'ai fait un j'ai fait un mais dañ ko supprimer c'est-à-dire que dañ ko supprimer carrément man la li ñuy wax amul c'est pas vrai mais man dama tourné ñu. et vous comptez faire faire pour... Euh, ma déggee en non c'est ça man nee naa ne man dinaa ci porter plainte te man maa ngi xool ak ñoom Seynabou Wade démb woo na ma maa ngi xool ak moom Lamine Thiam ak ñu ñu ci tudd. pour ñu mën a déposé plainte par rapport ak loolu et puis ñun dinañ ko topp ak PG pour xam lu tax suñu suñu tur nekk foofu mais li may wax tamit am na ay kilifa yoo xam ne boo leen déggee ci dara ci Sénégal réeruñu nëbbatuñu astu ba nga ma soxlee gis nga ma woo nga ma téléphone ñëw naa mais woo naa Babacar et remercie te def na ci benn postam mais da ngay woo kilifa yooyu la seeti leen ne leen ah ñun kat document bii ñëw jóg te ñu gis ci seen tur lan moo tax a jóg ñu leen tontu mais mënoo rek nga. tasaare seen tur ci aduna bi wasaare ko ci ay ci ay réseaux sociaux ku nekk di la tudd di la di la ngawti kawti te li ñuy wax nii yëpp je l'assume c'est pas vrai c'est pas du hmm. tout vrai d'accord Mamadou Lamine Thiam chaque vendredi yaa ngi ko fekk mu ngi xadaratul juma nekk kilifaam bu mag ci biir dëkk bi nëbbatuwul fen mais kon na ko waa na ko waa na ko waa sàmm jikko yi dem seeti ko ba ñuy seeti Thierno Madani wax na ma ko wax naa leen lan moo leen tax donc yooyu tamit dañ ci war a bàyyi. et vous pensez que euh, loi bi tey dina am dina favorable à l' assemblée nationale parce que aujourd'hui dafa mel ni euh, sànq yaa ngi koy préciser euh, est c' est une morale mais tey booy xool dafa xaw a am benn corrération corrération politique boo xamante ni ñu ngi ko ciy tudd et mën nañu wa sax dafa am ay parti comme majorité xoolatuñu ne loi bi ça concerne les sénégalais en tant que tel et tout donc. yow en tant que en tout cas am nga expérience assemblée nationale et tout est-ce que yaakaar nga ni tey loi bi am na chance su jàll comme ni ko association bi ak yenn député yi bëggee. boo fa dëgg yàlla boo déggee li ay miru ñu honorable député ay miru ñu wax président de groupe parlementaire ak ni mu ko waxee rek xam nga ne loi bi du am chance yàlla parce que nee na loi bi loi boo xam ne dafa am ay relents politique la. donc boo xasee ba dugg ci domaine boobu ba commencé ne ne dafa am ay relents politique dañ leen bëgg a jaxaseeg askan bi jël nañ ko déjà en code pénal te foog naa ci li ma gis nii ñuy jëm parce que war nañu convoquer bureau bi dinañu fexe ba luwaa boobu ñu war ko mën a rejeter wala ñu wut si li nga xam ne tey amul am euh, ñu wutal ko lay pat pour du jàll parce que état bi ci boppam moo leen teg pression parce que peut-être que ñi nekk tey au niveau de l'exécutif ragal nañ ne conséquences yi loi bi di indi ci wàllum. seen négociation au niveau international ak ñu mun a impacter ci yenn yenn projets yi ñu bëgg a def loolu ba da ne état bi moo leen teg pression parce que xam nañu ne tey ne lépp luy assemblée di nationale di décider état bi moo leen koy moo leen ci jox ndigal loolu moom moo le sait la séparation de pouvoirs elle est juste ni de de de forme mais dans le fond li nga xam ne tey neexul état état buggu ko buggu ci sori dinañ fexe ba bi mais mais yéen est mooy président de la république Macky Sall ba fi <clears throat> Obama ñëwee il a été ferme ba fi Trudeau ñëwee il a été certes mais amul leneen loo xam ne tey teg nañ jël nañ ko ci yeneen matuwaay boo xam ne en terme de mesure radicale pour won parents d'élèves yi pour won kilifa diine yi pour won parce que am na ay kilifa yu diine yu bëri yoo xam ne prononcé nañu pour cette loi là pour ñu pour ñu voté ko. Mm-hmm. mais am na ñoo xam ne tey. ba am na loo xam ne tey ñoom bu ko xoolee ci wàllu exécutif bu ñu ci tegee pression rek loi bi narut a jàll. te te te yéen euh, par exemple comme yàgg ngeen jël ay combat yoo xamante ni en tout cas dafay soxal askan wi tey bu loi boobu jàllul est-ce que bëgg ngeen si à travers euh, benn collectif wala je sais pas en tout cas benn rassemblement yéen bokk ci ñi nga xamante ni dañuy fexe ba euh, xeex li nga xamante ni moom moo di loolu di wàllum criminel wala bokk surtout. jàppale association bi ngir mu daal jàppale association bi surtout parce que association bi am na ba pare association bi def na manifestation def nañ ko fii place de l'Obélisque nit ñu bëri ñëw nañ donc loolu tamit wane seen taxawaay wane seen bëgg-bëgg wane aussi euh, tey fan la ñu bëgg jëm ak loi yu loi bu mel noonu donc loolu tamit ñu ngi koy xool naka lañ leen di jàppale pour li nga xam ne tey bu nekkee jàllul assemblée nationale ñu gën a mën a teg pression wala tey bu nekkee yóbbu nañ ko au niveau de la commission technique naka la ñuy fexe ba député yi ñu teg leen pression pour ñu voter loi boobu loolu mën nañ ko daal parce que doo mën a créer collectif wala leneen alors que association sàmm jikko yi ñu ngi fi déjà mm-hmm. maintenant aussi il faut ñu waxtaan ci ak ñi nga xam ne ñooy imaam yi nga xam ne ñooy xutba ak ñeneen ñi nga xam ne tey ñoom ñëpp war nañu mën a lëkkaloo pour waree ne lii nga xam ne tey moom suñu naxar la